li ñu dajale woon fii tey nag mooy tënk offre yi nga xamante ni génn nañ ko fan yi ñu passé ci euh, Sénégal muy gamme boo xamante ni liñ ci jublu mooy yombalal sénégalais yi internet ak appel comme ni ko Sonatel di defee ba mu sosoo ba léegi euh, directeur général wane na léegi ci présentation que ci at yi ñu weesu Sonatel wàcce na bu baax a baax a baax

li tax nag ñu dellu ci ñu doon waxtaan ak yeen tay moy fan yi biñu génné gam offre bu bees bobu dafa am ay luñuy mëna mën luñuy mëna wax ay euh, incompréhension si je peux l'exprimer ainsi en français yu ci am Manam dañu am ñu japp ni Orange dafa yok ay tarifam alors que liñu def du yokuté dañu changer fasinu façon bi nga xamante client yi mom lañu doon utiliser sunu ay offre li tax ñu def ko tamit dañu japp ni contexte Covid bi ñu dañu avons apporté ay euh, tarif yu gën clients yi nous ñu xoolee client bi nga xamante ni moo ci ëpp solo mooy client bi jël 500 francs chaque jour client boobu tey mu ngi ñu doon fay 500 par jour mais ci internet 20 émo la am 200 émo la amoon ci offre bu bees bi ak gamme bu bi nañ ko ba 300 émo loolu day lu toll ni cent francs bu nekk ci njëgam ñu wàññil ko ci euh, fanweer ak ñett loolu ko nekk na lu am solo te loolu boo ko defee yaa ngi ko def jagleel ko 60 pour cent ci clients yi maanaam téeméeri clients yoo jël juróom benn fukk yi danga nga leen a wàññil seen njëgu accès internet. ñu jël tamit beneen type client bu nga xamante ni dañu doon fay 1000 francs bis bu yàlla sàkk pour am internet ñu xam ni contexte Covid bi ñu toll di jël client di ko fayloo mille francs bis bu nekk gën pour dimbaliko mu mëna momit euh xawa oyef ci yan bi nga xamanteni contexte bi ñu tollu ñun ñëpp gis nañ ni ku nekk am nga ko ci sa kaw ay mbag muy lan muy ñu jox ko ben offre bo xamanteni semaine ci jiru juroom ñaari fan 1300 francs lay fay ci 1300 yoy dina am limu soxla ci minute yu koy permettre mu wote ak ci internet bi koy permettre également mu def ay besoin de connexion so xolé client bobu kon 1000 francs yi mu doon génne par bis léegi dafa dem ba di ko dikkee lu yées ñeent fukki dërëm par bis pour mu mën a am connexion internet bu doy am également ay minute appel yu yu doy ñu xool ni aussi am na ñoo xam ni dañ ne Ilimix 5 5900 bi ñu dindi daf leen gënaloon ñu wax ñooñu ne Ilimix 5900 boobu li ñu indi daf leen a gën a yombal la ñu amoon ndax léegi ci 5200 maanaam junni ak ñeent fukki dërëm mën ngaa am la nga doon am ci 5900 maanaam junni ak téeméer ak juróom ñetti fuk kon mu melni ni dañoo wàññi ci lañu daan fay ñoom téeméer ak ñen fuk kon ñoñu tam li orange apporté ni loo leen di oyofal la du nekkul lu leen di diisal nekkul luy yok seen ay tarif client bi nga xamni mom ilimix 1900 bi la doon jël so gisee li ñu génnee gamme bu bees bi ñu génnee ci Kirène avec orange ay offre semaine ak ay offre mois la yu leen di permettre ñoom tam ñu mëna dabu lañ daan am ci ilimix 1900 bi ci prix bo xamanteni moy mooy yées lañ daan fay kon boko xolé ci kaw ba ci souf amul ben offre bo xamanteni man nga gis ni Sonatel daf ko def pour yok tarif au contraire Sonatel dafa def offre yooyu pour tenir compte ci contexte bi ñu nek xamni dañu wara continuer accompagner suñu ay clients yombalal leen lañu ñu doon yanu woyofalal leen ko ba lañu am ci internet ak appel ñu mëna continuer diko am ci tarif bo xamanteni mo moo accessible